madame la ministre Aminata Assome Diatta ñu ngi lay nuyu. Mbemba mm, maa ngi lay fay. yow yaay présidente bu parti progrès social collectif nekkoon nga itam candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne moom lañu génn te ngeen amoon jafe-jafe ak seen digg ak conseil constitutionnel gis nañ ni président de la république daanaka dafa jël dogal daal di toxal li nga xam ne moom moo jëm ci élection yi waaye laata loolu gis nañ ay jàppante yoo xam ni amoon na niki démb ca place de la nation daanaka sax ci ndakaaru ay nit yi nga xam ne interpellé nañ leen waaye ay manifestation itam am na lu tax bokkoo ci manifestation bi ni mel oh Bemba déjà damay wax ni senegal dafay démocratie muy réew boo xamante ne ñëpp dañ ñoo naw muy ci sous-région bi jox ñu cër au niveau international ndax suñu démocratie sénégalais yi ak sénégalaises yi dañuy wone toujours ni ñoom même bu ñu amee jafe-jafe dañu ci mën a génn te du am problème bu rëy kon loolu nga xamante ne loolu lañ ñu xamal loolu la ñu war a sauvegarder tey ah dëgg la président de la république dafa jël décision reporter élection présidentielle yi ba le quinze euh, décembre en fait assemblée nationale moo ko jël moom décret bi nga xamante ne moom moo arrêté le processus électoral moom la jël. boo nekkee républicain munoo rafetlu loolu ndax dafay am chamboulement calendrier républicain bi te man li ma ciy gën a jaaxal surtout moom mooy comme président ñun bu ñu koy fal deux mille dix neuf euh, le deux avril la mandat mu war a jeex kon diggante deux avril boobu ba le quinze décembre ah, daanaka euh, du mën a représenter vraiment les sénégalais kon bu boobaa nan lañ ko mën a percevoir fii au niveau national ak au niveau international. moo tax damay invité ñëpp ñu mun a ñëw euh, ci dialogue bi man sama cër nekkul ci ay manifestation man du ma nit kuy manifester man li ma gis mooy mu biir amee nañu toog waxtaanee ko ku nekk mën nga am lu la nakari mais ci waxtaan rek léegi nga koy mënee régler. kon àndoo ci ñi nga xam ne woote nañ manifestation bi. non man mënum ànduma ci parce que man li ma bëgg mooy nañu nekk ci jàmm dëkk bi dal waaye nekk fii di def ay manifestation Euh, surtout bu fekkee an manifestation bi tere nañ ko xale yi nekk ci ñu jàpp xale yi tëj leen man en tant que yaay en tant que bàjjen mënuma d'accord ci loolu parce que xale yi tamit nañ leen yërëm ndax waajur bu nekk sa doom buñ ko tëjee sa kaso ba da ngay nekk ci jaaxle ba kër mu génn ci kaso ba kon bu ñu dugal xale yi ci loolu waaye bu ñu amee lu ñu nakari nañ ko waxtaanee man li ma jàpp mooy war nañoo profité ci lii régler lu bare waaw ci jafe-jafe Sénégal yi ak sénégalais yi nga xam moom la ñuy dund. mais gis nañ ni depuis ba président wala assemblée nationale jëlee dogal jàpp élection yi fukki fan ak juróom ci weeru décembre mais dafa mel ni yéen itam kenn déggu leen. waaw ñun kay ñu ngi wax mais ñu suñu kàddu bi yëpp mu ngi nekk ci woo nit ñi ñu nekk ci jàmm dafa mel ni parfois dafay am jamono yoo ciy toll ñu bari li leen di intéressé moom mooy nga woo nit ñi ñu manifester ñun bokkuñu ci ñooñu. ndax dañoo yërëm askan bi bëgguñu askan bi ñu tegal leen coono gis nañ fii manifestation saa yu amee xale yi di dem di def góor góorgóorlu yor seen cak-cak yi dootuñu mën a dox doxi seen soxla seen liggéey taxaw te ci loolu la ñu yaakaar pour yor seen njaboot ñii di jaay ci mbedd yi duñu mën a jaay comme il le te loolu la ñuy yaakaar pour yóbbu seen njaboot kon nag nit ki yow bul xool yow li nga xamante ne arrangé na la rek waaye na nga ci sóoraale euh, intérêt euh, askan bi kon moo tax ñun ñoo bokk ci ñiy woote ay manifestation waaw reconnaître nañ leen ndax ñoom seen droit waaye nag ñun moom mënuñ ñoo xaar ci ay affaire manifestation waaye fépp foo xamante ne buñ fa waxtaanee mën nañ fa gis solution mu doon njëriñ askan bi euh, ku ñu fa xaar gis ñu fa. gis nañ ñi nga xam ni ñoo di ay jàngalekat daanaka débrayage la ñu amal ki démb ngir rek ñaxtu li nga xam ne moo jëm ci élection yi nga xam ni toxal nañ ko euh, ndaxam war nañ jàppee noonu système éducatif bi itam saa yu leen neexee ñu amal ay débrayage. waaw man nag rafetluwuma ko parce que syndicat yooyu bi ñu koy créer c'est pour ñu défendre intérêt euh, enseignants yi défendre li nga xamante ne mu ngi dem ci wàllum école jàngi kon waruñu jël nit ñi en otage syndicat yooyu parti politique bu nekk am na fa membre kon man du ma rafetlu ñu am yenn position yi waaw donc bu ñu bëggee manifester nañ dem manifester. bu ñu bëggee def manifestation nañ dem manifester mais ñu bañ cee boole école bi waaw wala ñu mbubboo syndicat mm-hmm. yooyu loolu moom man rafet ma ko personnellement. donc ay perturbation. mais day indi perturbation te loolu rafetlu ñu ko parce que politique bi warul jote dara ak école bi saa yu politique bi ñu joxe ñu ko jaxasee ak école bi rek problème day am loolu moo ñu dal ci université bi léegi mu ngi nii suñu xale ñoom ñoo nekk fii bëgg a dem jàngi te mënuñoo jàngi ndax dañ fa dugal politique donc war nañoo bàyyi xel xale yi war nañoo bàyyi xel avenir ndaw ñi. en tant que leader politique est-ce que yow d'accord nga ci doxalin bi nga xam ni parti démocratique sénégalais doxalee na ko. waaw man de li ma bëgg a wax euh, foofu mooy ñun lu ñu ñoo wax parti démocratique sénégalais mu jéggalu ci lu mu exercer son droit dafa gis ni euh, ki nga xamante ne moom mooy responsable bu nekkoon seen candidat muy Karim Meïssa Wade Euh, bi ñu ko écarté ci course bi demeewul noonu lu ci yoon ah moo tax moom it mu ñu utiliser voie yi ñu am yëpp parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ kon mënuñoo nangu ay sénégalais ni ñun di décider kii mooy bokk kii moo dul bokk te duñ ko teg ci yoon il faut ñu yemale ñëpp ndax constitution bi ci boppam moo yemalee doomu Sénégal yi kon loolu Euh, ñun dañ koy reconnaître di xam ni kat ñoom dañoo def ñu lenn lu dul exercer seen droit comme ñun ñi nga xamante ne dañu nekkoon des candidats spoliés lu ñu exercer woon suñu droit ne nañ ñu rétablir si suñuy droit. kon amoo dara loo leen di reprocher parce que ñu bari dañu jàpp ni euh, dañ ko def en connivence ak ñi nga xam ne ñoo di waa coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu ko bañ parce que boo xoolee euh, PDS moom kese xëy na amul doole bi au niveau de l'Assemblée nationale pour am li mu bëgg. kon naturellement Benno Bokk Yaakaar dooleel na ko ci côté googu mais man damay wax rek sur le principe man dama def dama def jugement de valeur damay nekk le principe mooy nit ki ñu la tooñee war ngaa wane ni tooñ nañ la te loo mën a def pour ñu rétablir la ci say droit war nga ko def loolu constitution bi moo ñu ko may te moom loolu la def beneen bi mooy li gën a gaaw parce que man nag foofu laa leen di xaaree parce que. mooy fan dañoo ak dañoo accuser ay góor ay père de famille. ay nit yoo xamante ne ay sénégalais nañu comme ñun tamit am seen njaboot donc ñooñu ñu accuser accuser leen guerre il faut que ñu indi ci preuve bi nag aussi parce que doo jël nit nii rek sànni ko en pâture te doo indi preuve yi. ah commission enquête parlementaire bi mi ngi. donc moo tax ñu ngi xaar commission d' enquête parlementaire mu génnee rapidement les résultats ñu bañ ko nëpp nëppal. yow loolu ngay xaar mu set wicc. waaw man moom loolu loolu laay xaar de man loolu laay xaar moom laay xaar bu set wicc parce que tamit bu fekkente ne dañ leen a guerre ñu xam ne c'est très grave donc ça veut dire dañoo décider di écarter ay nit parce que ah, c'est intérêt pécunier lañ ci am bu fekkente ne tamit liñ leen teg amul aussi yoon mën a def liggéeyam aussi parce que nit ki nit ñi tamit doo leen accuser noonu yàq seen der nii gratuitement mais ñoom ñu ngi wax dissolution conseil constitutionnel ñu indi cour constitutionnel waaw xam nga cour constitutionnel sax moo ëpp doole conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel boo xoolee comme le nom l'indique c'est un conseil voilà donc je pense que yooyu moom du looyu sax du loolu mooy am impact réellement ci ci li ñuy wax nii mais ñun li ñu bëgg moom mooy comme li ñu leen accuser parce que même bu amee cour constitutionnel <laughs> euh, ña fa nekk bu ñu bu fekkente ne mën lañ leen ger dañ leen di ger c'est l'appellation qui change et peut-être les prérogatives yi ñu leen di jox mais man li ma leen di euh, en tout cas mooy nañu indi les preuves parce que boobu ba léegi ñoo ngi xaar preuve yi nag te loolu moo sabab report bi comme comme loolu moo sabab report bi à 60 pour cent vraiment par respect pour les sénégalais il faut ñu gindi askan bi. président de la république tàllal na loxo ngir ñi nga xam ne ñoo di way politique yi ñi bokkee ci société civile bi ngir ñu mën a ñëw bokk ci ab dialogue bi nga xam ne daan fa waxtaanee lépp la nga xam ni jàpp nañ li. ci lu jëm ci doxalin processus bu ñoŋ la ndax yow tàllal loxo boobu mu tàllal loxo da nga koy wuy si. Euh, sama parti parti bi nga xamante ne moom mooy PSC jàppoo ma bokk ko ak euh, suñu membre yi ak man mii lu ñu ñor moom mooy jàmm Sénégal lépp luy tax Sénégal nekk ci jàmm mu nekk ci dal développé ñun ci loolu la ñuy dox lépp loo xam ne day tax askan bi nekk ci jàmm ñun loolu mu daf ñoo intéressé man li ma jàpp mooy. dara mënuñu koo régler ci ay manifestation wala ay xeex yàgg-yàgg ci ay waxtaan lay mujjee kon nañ tàmbalee ci waxtaan bi bu ñu waxtaanee wuyu euh, main tendue boo nga xamante ne moom la président de la république joxe ñu dem ci concertation yooyu dialogue boobu muy woote dina nekk occasion jafe-jafe yi nga xamante ne gis nañ ko ci processus électoral bi ñu waxtaanee ko bu ko defee aussi ñu créer condition yi nga xamante ne day tax ñu bëgg a ñu mën a dem ci élection yi ci jàmm ak salaam ñàkkul sax mën nañoo waxtaan ci biir dialogue bi ñu ramené dat bi nga xam ne dañ ko yóbbu décembre mu nga décembre tamit weer la boo xamante ne suñu mbokku chrétien yi dafay weer bu am am solo ci ñoom. ñu jege ko wala. non ñu ñu gën a indi kii bi euh, élection bi soit au mois d' octobre soit au mois de de novembre bu ko defee euh, ñu mun ko organiser ci jàmm ñëpp participer ci. dialogue bi tamit maa ngi ci woo ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ay ñoñom ma ci woo Karim may Wade ak ay ñoñom ñoom sax am naa ba ñooñu dialogue waaye surtout damay insister ci suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo féetee ci euh, Pastef wala ex Pastef nañu ñëw bokk ci dialogue parce que après wu ak ay ay waxtaan moo koy tabax te tey jii Ousmane Sonko am na wàll gu moom mais am na wàll boo xamante ne Eh, ñi sénégalais yi ñoo ko moom ci moom kon il faut moom it mu ñëw nangu waxtaan parce que ay sénégalais yu bëri bëgg nañu tamit moom mu mën a bokk ci élection yi ñuy organisé ci kon moom nañoo bokk ci waxtaan yooyu ba nga xamante ne aussi ñu créer les conditions bu bu ñuy organiser waat élection képp kuy doomu sénégalais te yaakaar ni mën na indil njëriñ Sénégal ñu mën a présenté wu bokk ci. ci loo xam ne du am parparloo. du am ci parparloo moo tax damay insister ci. TDR yi terme de référence yi terme de référence yi man tey fi may xaaree muy muy société civile bi muy acteur politique yi euh, mu fu ma leen di xaare moom mooy nañu def ay proposition ci terme de référence dialogue ñu liggéey ci ba pare ñu engage président de la république engagé wu ni kat lu jëlee ci dialogue bi moom lay appliqué lu ci changé dara bu boobaa ñu mën a dem toog waxtaan xool lu ñuy tegee suñu suñu réew mi ci yoon te comme le président la république dafay dem incha allah ci la ñu mën a defar leneen lu bëri parce que bu ñu ko defarul sax moom ci moom ni beneen président bu ñëwee kooku du nangu yenn yenn changement yi ñu bëgg a def kon ci pour man c'est une occasion en or pour ñu defaraat suñu démocratie comme ni liñ ko bëggee ñu defar ko ànd ci avec le président de la république teg ay conditions yu leer yoo xamante ne bu ñu demee ci élection danañ ko jëlee un président légitime boo xam ko xamante ne dina mën a liggéey comme il le Euh, cinq ans yi lan moo war a nekk taxawaay ku nekk ci saa si tembe fii nga xam ni fële réew mi tey toll. woote jàmm rek woote jàmm parce que ñun ñëpp xam nañ ni tey Sénégal euh, dafa nekk convoité xam nga réew moom bés boo fa déggee pétrole dégg fa gaz rek dégg fa ay recherche naturelle rek problème day day commencé. ndax am na ñu bëri ñoo xamante ne daf leen di intéressé yàq sa réew du dara ci ñoom ñoom l'essentiel na ñu am la ñu bëgg ñun nag sénégalais ñoo war a am suñu ful ak fayda régler suñu problème bañ cee déglu benn étranger maa ngi dégg léeg-léeg dëkk tubaab yi ñuy am lu ñuy wax bu leen kenn déglu ñu mën nañoo régler suñuy problème dañu leen won suñu full ak suñu fayda ñu régler suñu problème di santaat bi gërëm suñu FDS yi moom des forces de défense et de sécurité ñuy def liggéey gu am solo may ñaanaat sénégalais ñu gën leen jox cër ndax kat bu ñu bu ñu nekkee ci sécurité bi mën a dox suñuy soxla ñoom ñoo tax ñu leen di invité waat li nga xam ne ñun moom lañ leen xamee depuis toujours ñu nekk ay républicain ñu continuer ci man damay am fierté di wax ci force de défense et de sécurité ndax sama ci ñoom la bokkoon waaw. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax madame la ministre jaata Assome Diatta. jërëjëf Demba maa ngi leen di gërëm di leen di ne leen jàmm rek moo moo moo moo moo am solo. di fàttali ne yaay présidente bu parti progrès sociale collectif. jàppoo jërëjëf merci beaucoup jàppoo jërëjëf merci beaucoup jàppoo